wàllum guerre corruption di jafe-jafe bi nga xamee ne sénégalais yi yàgg nañoo jànkonteel ak moom mu mel ne sax dafa dem ba bokku ci seenu dund gannaaw bi nga xamee ne ñii di borom doole yi dañ koo jël def ko arme boo xamee ne moom la ñuy xeexee nga xam ne ñoo di néew doole yi loolee nag métti ne métti na ko askan wi ngir jafe-jafe yu yoo xam ne moom lañ ciy jànkonteel tax na nag askan wi kenn ku nekk ak xalaat bi nga xamee ne moom nga ci daal di amee jamono ji nekk nii defe naa ne loolu moo euh, lëmbe dëkk bi maanaam guerre voilà guerre da ngay jaar jaar doo jaar fi nga war a jaar voilà dangay am loo war a lijjanti wala papier wala soit que sa doom di jàng wala extra bari na daal kenn mënutul lim lépp bu ñu ko doon wax tey fi fanaan parce que nit ki di ngay lijjanti dara wala sa doom di jàng nga fexe ba euh, euh, lu toll koy pa papier yoo xamante ne dina gaaw a euh, réussir si njàngam mais dafa jër a sóoraale parce que boo ko lijjantee papier ba mu am bac am diplôme boo xamante ne maanaam e-, capacité am egg tey fu mu mën a dem di fa liggéey yaakaar naa ne te capacité am eggu fa day daal indi gàllankoor. sëriñ bi mu jàpp ne moom sëfoor la waaye ger bu métti la ñuy jànkonteel ci tali bi. ger bi daal li ñu ci gën a métti mooy wàllu transport ndax ñun ci transport la ñuy liggéey oto yi nga gis ñu gaare ñëpp ñun lañ fi fekk si jóge Ndakaaru ñii nga jóge Tamba ñii nga jóge Diaobé ñii nga jóge fu ne ñëw fi fekk suñu fi mais daal ger bi ci gën a métti daal mooy jànkonte bi ñu jànkonteeg moom ci yoon yi ndax da ngay koo xam ne buy départ day day wecc ko lu mat ay ñaari junni ñetti teg ci table de booram yaa ngi dégg am pièce ak amu pièce ci yem di joxe di joxe di joxe ba nga yegg ba fi ñu toll nii te ñun taxut ñu yokkal ñu wàllu transport taxut ñu amut benn pilim boo xam ne nee nañ lii kat diggante Tamba ak Diaw ba lii lay fay négociation la rek diggante Dakar Touba amut lii la négociation la diggante fii ba Ndar négociation la yaa ngi dégg ci wàllu transport mais bu fekkente négociation la ci wàllu transport ba pare yow nga wàññi ko nag sarse fii lu mat cent mille francs def ci gasoil def ci say frais mosal ci coxeur yi di dawal di dem di mille mille ba ba nga yegg metti na nañ ñu dimbali ci wàllu wàllu wàllu woowu daal moom bu ñu ci mën a dimbali te yàlla rek tax moom danañ jël. kii moom jàpp ne donte na safoor la tamit ger gi yemul rek ci ñoom safoor yi ndax ñi ne ju doole yi di ci gis kuñ ci ger sax ba dugal la ci ci kaso bi. fi noonu même boo amee problème sax yaa nit te yow nga nekk baaro sax boo demee ki nga xam ne fi doon moom moo am alal dañuy yëf ab dëgg nga farale ko yow mi nga xam ne na fi li comme nga xam ne fi mu waxee foo ñun ay suba lañ ay ay coxo lañ ci oto yi ci la ñuy dund ci la ñu ne affaire guerre yi nim ñu sonal sonal nañu trop ci wàllu gu ne même loo mën di dugg ci àdduna fi bu ca guerre demul du sotti sa doom juy jàng boo gerewut du sa jarbaat bu jàng boo gerewut du sotti lépp looy dugg même pièce bi ngay liggéey sax boo liggéey pale sax boo doon ay ay carte d'identité a yomb boo demoon fi ne carte da nga dem fukki yoon ci bureau bi ñu naan tey suba ëllëg ngoon tey suba ëllëg ngoon ba mujj na ngay maar mujj nga bàyyi ay permis de yëpp ñun ci loolu ñu dimbal boobu ci loolu la ñuy sonn. ñenn ñi nag jàpp ne ger bu métti bi amul benn njariñ ci réew mi ndax ñi ñu koy def amalu leen benn njariñ. supervision moom baaxu ci dara nit ki lépp lu mu nekk rek war na cee wane fierté daal mu nekk lu mu gëm mu nekk lu fidélité ci moom parce que loolu bu nit ñi ñëpp gëmoon lu gëmoon seen bopp rek kenn du leen mën a ger waaye wàllum xaalis beeg ak intérêt personnel beek yooyu yëpp ci biir mooy waral ger bi. moo tax daal ñu ngi ñaax sénégalais yi ñu gëm seen bopp <clears throat> ñu fexe ba ba kenn du leen mën nax te lépp li ma nekk rek ñu ci seet yàlla. mu mel ne nag jafe-jafe boobu sénégalais yàgg nañ konteeg moom ci wàllum gar di ñaan nag kii di nguurug Sénégal jël ci ay matukaay bu baax a baax ngir loolu mën a saafarawu